lii ku mu doyul dara doyu la sunu nuyoo nag ñi ngi koy jiital ci la responsable politique Alé Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ci turu turu boppam di ko nuyu ci au de la coalition benn Bokk Yaakaar di nuyu le grand responsable sunu baay Talla Gueye di nuyu Dame Sey Yaay Penda Mame Faty Gueye Ahmed Samb Matar Cissé Njaañ gépp di nuyu sa sama ay soxna nag na ngeen ma ko may ma beral leen nuyoo lii nii yaakaar naa ne mooy li war a am Adi Niang en 2001 bu ko El Hadj Ba Thiam dugalee ci politique kon war naa mën a ànd ak Alé Thiam war na mën a nekk parce que man auparavant man kenn mësuma gis fu ñuy politiquer waaye nag dañ maa woo ci lu ma neex lu ma bëgg muy njaañ. bàyyi bàcc tam ma nga ca dëgg maa nga ci fenn maa koy fekki du ma fekk si kon lu may wax rek sama bakkan laaj ci teg ndax wax lu wér lay doon dëgg rek lay doon dëgg lay doon daf ma woo ci saalam waaye mbay sama nekkatu fi sama baay nekkatu fi kon man maa fi des maa leen di fekk ñu ne ko aadi mii de dañoo bëgg mu ànd ñun ci politique ci njaañ Baye Moustapha nekk ku maandu ne leen aadi magum jëmm la wax leen ak moom duma ko waxal te itam effectivement su ma waxoon sax damay engagé woo waaye nag daf ma ko delloo ñu ne ma daan lay wooy ma leen daan laa leen di wuyu wala la asi mosuma si dellu ginnaaw incompréhension nag mën na am mais man li ma nekk mosuma si dellu ginnaaw man je suis un homme de conviction man ngëm-ngëm laay doxee pas-pas lu ma gëmul kenn du ma ca gis du ma ca wax lu ñaaw sama yoon du ca nekk mais lépp lu ma gëm ku taxaw sama kanam danga ma gis na xam ne dinaa ñëw soo may def def ma su lay def ma def may mën dinaa ñëw loolu laa nekkee fii tey man APR laa depuis 2009 APR laa mosuma fi jóge lu man di xewit mosuma jóge APR kon su ma dee nag Alla Thiam ñuy wax ci fal Amadou Ba loolu lu may neex la torop torop beneen bi njaañ dama jaral lu ne njaañ damaa jaral ma njaañ laa mos a wuyu mosuma keneen gis-gis nag laay doxe kon lii nii nañ ko traduire ci urne yi mbooloo mii nii nañ ko def ay carte dugal ko ci urne yi ndax loolu moo ñuy mën a may ndam daam sey wax na guuta wax na kii loolu bàyyi daam loolu dañ na ñi ñi koy dindee nii dañ na ñii ñoo koy dindi sunu benn benn yi lañu wàññi boole ko muy benn yu bëree bëri ah. jërëjëf ñi koy dindee ngi nii na seen xel dal ndax kuy woo ab dëkk Njaañ ku fi dikk di gis nii ak heure bi ñu toll nga xam ne Njaañ a mobiliser pour le Benno Bokk Yaakaar Njaañ a mobilisé pour le candidat Amadou Ba et ça et ça se fera dès le premier tour incha allah rabbi dès le premier tour à partir de 19 heures avec la publication des résultats on aura le candidat Amadou président de la République dès premier tour loolu nañu leer nañu gëm loolu. nañu gëm loolu te loolu mooy li am incha allahu rabbi kon temps bi moo xat duñu guddal en tout cas lii mooy li war a nekk nekk na Njaañ dana ci gis boppam ndax bu ñu ko indilee résultat yi ñu bëgg Amadou Ba nekk président de la république Njaañ dana génn si guuta incha allahu rabbi dootu ci nekk kon dañuy gàttal rek li ñu bëgg a wax ëpp na loolu may nuyu ñëpp. waaye nag di beral nuyoo waa Daara Xuddoos maa ngi beral nuyoo waa Daara Xuddoos di leen woo ci liggéey bii daañu nekk na ci waa Daara Xuddoos ñëpp ñëw ndax ñëpp a ngi fi ñoom ñu ngi fi waaye nag ñëpp a ngi fi wasalaamaaleykum wa rahmatulah jamono ji moo xam rek mais wax nañ ëpp nañu li jërë ngeen jëf. jërëjëf Adi saa yoo jëlee carte discours rek ndaw ñi gis seen bopp mag ñi gis seen bopp jigéen ñi gis seen bopp donc jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax a baax. donc sans plus dañuy jox ki nga xamante ne bii nag. ci am discours parce que il est 23 heures. dëgg la donc bariwul pour que affaire bi jeex dañ merci beaucoup ñi ngi jox kàddu gi kan responsable boo xamante ne bii ne moom mooy ndeyu coalition bi muy jàmbaar di jigéen di koo xamante ne bii ne moom commencé politique ba léegi musul bàyyi. ci depuis li nga xamante ne bi ne moom mooy Ousmane Tanor la commencé woon lépp li nga xamante ne bi ne moom mooy politique muy kan muy suñu yaay Aïssatou Dieng nañ ko tàcc bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ay ca boog merci beaucoup DJ merci beaucoup na a neex barke sëñ Fall. dama kontaan am mbégte. maa ngi nuyu ñëpp. bàyyiwuma kenn. góor a jigéen mag ak ndaw di nuyu suñu responsable Alé Thiam di nuyu waa Benno Bokk Yaakaar Baye Talla Gueye di nuyu Dame Seye di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn góor ak jigéen mag ak ndaw man maay Aïssatou Dieng ñaar fukki at ak nangam ma ne ci coalition Benno Bokk Yaakaar kenn ku ne xam na ne man duma arrière duma dellu gannaaw tey laa gën a takk sama ndigi tey laa gën a taxaw waaye nag damay sant jigéen ñi njaay jigéen ñëpp laay sant kontaan nan bég nan lii lépp yéena barke Sëriñ Touba nii ngeen ko defee nii bu dimanche na ko defee nii jël leen ngeen dugal ko ci ni ba woteel Benno Benno Yaakaar Amadou Ba ala jaam na gaañ a ji laa bëgg ngeen def ko bu des góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant waa kër maam Ndiaga Fatim Diagne kontaan naa bég naa sama xol sedd na guyu barke sëñ Fall am nañu mbégte bu baax a baax ak kontantement léegi nag ki may jox kàddu gi moom it day jigéen di day jigéen di jàmbaar di ku ñeme proximité di ku ñeme politique di ku yàgg a téye femme groupement yi di koo xamante ne ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul depuis jamonoy Baye Bàcc danaan wax naan. ku xuusal ñëw ñaajal jàll mbooloo mi yaa ko moom xuusal ñëw ñaajal jàll soxna bala xuusal ñëw ñaajal jàll mbooloo mi yaa moom soxna bala xuusal ñëw ñaajal sama séeri la de rahim alhamdulilahi rabil alamina ñoo ngi sant yàlla dellu di sant yàlla di bég rekk nag tey ndax xam na ni am nañu añu proximité suñu liggéey réerul ñun responsable ñoo ngi leen di nuyu di leen di gërëm waaye nag suñ nee gàttalal wax ji man mënumaa wax lu gàtt ndax dëgg mënut a gàtt dama xippi leen seen bët yi dofu leen jënde jàpp leen yéen ñii fi toog yor ay casquette ak tiset ak mbubbi Amadou Ba ak ñi bëgg Alé Thiam ak ñi bëgg responsable yi taxu leen may wax ñi tax may wax mooy ñi ne ci dëkk bi ñëwaguñu te dégg sama kàddu dofu leen jënde jàpp leen fekk nit koo xam ne yorul ay bëñ ngeen ni da koy voteel da a dof bañi kese yorutum réew dama ne ki xam ne ci ni moom dañuy ndaw yi dañoo jëm jël saa yaay mu ni moom demul ci suñu yaakaari àddina ak muy muy Tuubaa Mbàkke gii mu ne tànkam du fa jëm yaakaaru leen du leen laaj ndigal soxlawul seenu ñaan yéen lu ngeen wuti yéen waa dëkk bi ak yéen waa réew mi mii mooy waaja te moom moo ñu joxañ Amadou Ba suñu doom di jàmbaari fàkk tëdd di aale caam nekkal ñu ci njaañ gii dofu leen gine jàpp leen yàgg na leen a wax ni bu leen leen nax lamp yi ma ni leen Macky Sall ko fi indi te moo ñu joxañ Amadou Ba dama ne xaalis bi ñuy séddale moo ko fi indi dama ne xool leen ci aale caam mi mboole yeeg benn yi ci ci ci njaañ gi weer wu nekk kay aaye bu fegalee keneen aaye ko ko fi def dama ni dofu leen jën a jàpp leen ana ndox su ndeex sañ daan naan ak su néew anamu kon nag dama ne dofu leen jën a jàpp leen aale caam mii ci sama ginnaaway waaj ma leen ma leen fàttali déglu leen ma ma leen fàttali ne délégation bàjjanu gox yi ñi ngi nii toog ñoom ñëpp ñi ngi toog nekk ci ginnaaw ale Thiam ma di leen xamal ne Alé Thiam mi dañ ko war a jàppale mu taxaw ñu jàppale Amadou Ba mu gañe réew mi au niveau national Alé mi gañe Njaañ ndax mooy suñu ndam ndax dama ni waa Njaañ dofu leen gën jàpp leen Njaañ suux na ba ni meng nit ku fi indiwul lu dul ba ñu kese dara lañ ñu defal bu ngeen ko watalee da ngeen di perte bu loolu jàllee nag ma di leen xamal ne nañ leen defaraat toogaay yi ndax mbooloo mi bari na lool te xam naa ne kenn ku ne yor nga carte d'identité te dama leen di xamal ni mbooleem ko am maanaa ci dëkk bii mbaa ngay jongama mbaa ngay grande dame yaa ngi fi toog bu génn nañ de passage nag da ngeen ni da ngeen a yàkkamti waaye maa ngi sant sama ñetti goro yi ca kër ga ndax dañoo tëj kër ga wàcc fa bisaab baa kafe ga topp si ma te mënoon na leen caa bañ a fekk maa ngi gërëm waa Luumeen gépp ak waa Ngay ñëpp génn si nañ juróom-ñaar fukki tani yañ leen joxoon diggante casquette ak kii ñëpp génn nañ ña amuli bagage yi topp si nañ ma leen di ñaanal bis baa nag kenn ku ne na nga sa carte d'identité te li ma daan bañ ñu di ko wax tey maa koy wax rek bu ñu wor bu ma wor bu leen wor dama ne bu ma wor man soxna ba waaye yéen bu leen wor dama ne ana tëgg yi yéen la ñuy liggéeyal dama ne bu leen war bu leen war aale caam yéen tëgg yi woteel leen ko leen ko bu seex caam taxawal leen tëgg yi ñu woteel Alé Thiam yéen la ñuy liggéeyal géer ñeeg rab yi wane leen Alé bu leen wor ma leen di xamal ne dañ ne bu ngoonee nag na ñëpp nelaw nelaw jotagul de des na 48 heures ñu sibale door a nelaw dama ne suba bur rajo bi ne salaatu xayri mi na naw jóg leen liggéey bi jeexagul de kenn ku ne seet ka nga fàtte nga daw fàttali ko ko mooy dëgg te wor moo mën a suqali Njaañ Amadou Ba moo mën a suqali Sénégal borom ba yoru dara. waaw tàcc leen sama mu toog fa lay seli installé confortablement. DJ merci beaucoup. donc sans plus tarder heure bi dafa sori. te dese nañu ñeenti orateur ngeen dimbali ñu rek ci ñu wàññi tuuti bi ñu jox ki nga xamante ne bi ne moom mooy Amadou sambu mu def discours moom mi nga xamante ne moom it ba mu jaafe ba léegi bàyyiwul dañu mën a joxoon ne man nañu wàññi tuuti ambiance bi discours yi ñu mën ko déglu bu baax a baax Amadou vous avez la parole. asalaamaaleykum mbokki Njaañ. asalaamaaleykum mbokki Njaañ. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak ci santam ah di jiital ci nuyoo bi nag njabootu maam Njaga Fatim gi yëpp di ñaan lii nga xam ni ñu ngi koy def yàlla defal ñu ci ndam ma leen di wax ni balaa maa ñëw ci Amadou Ba damay ñëw ci Alé Thiam parce que même bu dul Amadou Ba war nañu voter la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax Alé Thiam fan laa ko teg. tout récemment gis ngeen moom moo dem au niveau du dispensaire jënd ay ventilateur jënd ay chaise jënd ay chargeur pour toute la population de Njaañ pourtant loolu maire bi la waroon wala adjoint au maire bi waaye Ali Thiam moo ko def keroog ñoo ànd au niveau de Thialène mu jënd ay machine daal di koy yóbbul jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Thialène wax leen wut leen fu nga xam ni fa ngeen di ubbi centre ma koy fay loolu Alé Thiam moo ko def te maire bi la waroon adjoint maire bi la waroon bi ñu demee bi ñu demee Covid 19 Alé Thiam mi moo jënd mille masques jox ko ki nga xam ni moo fi nekkoon maire jënd ay détergent jox ko ko pour la population de Njaañ loolu maire bi la waroon adjoint maire bi la waroon te Alé Thiam moo ko def kon nag ki nga xam ni yorul benn ndomba tànk di def ci dëkk bi li nga xam ni képp koo xam ni yaa yor ndomba tànk yaa ko waroon def. kon bu leen nee fal leen ma ma jàpp ci seen i soxla war ngeen koo gëm kon voté leen Alé Thiam pour que la coalition Benno Bokk Yaakaar gagne au soir du 24 mars. dafa am nag ci keneen ku may ñëw muy Amadou Ba kan mooy Amadou Ba mooy le ministre des finances kan mooy Amadou Ba mooy le ministre des affaires étrangères kan mooy Amadou Ba mooy le premier ministre kan mooy Amadou Ba mooy directeur des impôts et domaines kooku nag. kooku nag préparé nañ ko pour mu mën a nekk président de la république ma wax leen ni ci programme Amadou Ba benn rek jar nañu votel Amadou Ba Baye Dame Seye mi ngi naan ana ndox mu neex mi Amadou Ba nee na buñ ko falee président de la république dana indi ndox mu neex mi nga xam ni moo nekk Kër Momar Sarr au niveau de Touba waaye nag waaye nag na ngeen xam ni bu koy indi Touba du ko jaarale ci asamaan si njaan ji lay jaar kon nag war ngeen ko voteel pour que waa Njaañ am ndox mu neex Amadou Ba moo wax ni bu jëlee nguur gi képp ko am 65 an dafa lay fay retraite moo xam jàng nga moo xam jàngoo moo xam liggéey nga moo xam liggéeyoo dana la fay retraite obligatoire waaye da nga dama bëgg nag ngeen bàyyi xel ci benn mbir Amadou Ba war ngeen xool ki nga xam ni moo fi nekk di jàmmaarloog moom lan la wax moom nee na bu jëlee nguur gi day yóbbu capital bi Casamance. yéen yi nga xam ne da ngeen am ay horaire yu jëm dakaar chaque jour ngeen di dem Dakar bu yóbboo capital bi Casamance bu ngeen seen horaire yooyu fii la ñuy jóge di dem ba Casamance. kon nag na ngeen xam ni li nga xam ni moo koy faj mooy au bu bu ñu yàlla dimbalee ba dimanche. ngeen voté la coalition Benno Bokk Yaakaar kooku moo mën a saafara seen soxla kooku moo mën a faj seen problème li nga xam ni moom laa leen di wax mooy benn carte la ñu am la carte de la coalition Benno Bokk Yaakaar le bulletin est comme ça la seule différence e que photo bi moo daan nekk photo Macky Sall léegi dañ ko changé def ko photo Amadou Ba mais bulletin bi reste le même bulletin bi marron la am fas wi kon voté leen la coalition Benno Bokk Yaakaar pour euh, pour la victoire au premier tour premier tour premier tour premier tour premier tour premier tour premier tour premier tour premier tour merci merci et encore merci jërë ngeen jëf. merci beaucoup Amadou merci beaucoup Amadou suñu yaakaar ci yow ni nga ñu jugee yàlla ñu ko Amadou ba jigee ma leen di xamal ne lu yëngu looy la ko yëngale ko doole ñun suñu organisation ci communication sax ku ko dégg xam ne yemuñu ñeneen ñi bis bu ne may leen courant du pile te naaru góor du daw mbayaar fii Sénégal la ku ne xam nga man danga ko doon nangu ku nekk ni mu discouré xam nga ne noonu la war a discouré léegi nag dama bëgg yéen mbooloo mi yëpp ngeen may ma àddee déglu pour 30 secondes parce la presse est là. te ñoom dañoo war a jël benn interview ci lu gàtt gàtt juróomi minute te ñoom dañoo war a dellu te 23 heures léegi mu jot te ne woon naa leen aale day ubbi après day tëj yaa ngi dégg parce que ñun benn slogan la ñu am tey moom mooy xëdd dem vote ji ndogu zibilé xëdd vote ndogu zibilé pour ñu mën a am loolu nag li aale di wax dafa am solo il faut ngeen déglu ko attentivement s'il vous maanaam nañ ko déglu ak xel mu dal ndax wolof njaay nee na dégg ci nopp tànk àndut ak xol buy taataan mënta jariñ boroom loolu moom maa ko wax dégg ci sa nopp rek ngir mu mën laa jariñ il faut mu ànd ak sa xol bi taataan man sëtu jibi ci am koppi laa njaañ laa dëkk Sénégal gi laa dëkk soo may tagg jëmmu caam Modou Marème caam ma sam faata Amar Maalik ngay wax man ci réew mi laa bokk te xam naa li xew kon nag yéen ñëpp na ngeen ànd déglu Alé Thiam moo danaa tagg Alé bu ci kanamee danaa ko tagg garaawul nañ ko déglu déglu gu ànd ak teey ak tek bu kenn tàcc bu kenn yuuxu presse bi def liggéeyam suñu paree ñu continuer est-ce que leer na ne leer na yàlla na nga gudd fan xam nga li tax ma wax leer na parce que waa leeral ñoom ñoo koy jël jërë ngeen jëf

wala da ngeen a xamul seen candidat boog. Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba. loolu laa mën a gis nag loolu laa mën a dégg nag asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen balu ak te di leen balaq ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm di jiital ci nuyoo bi waa kër maam Njaga Fatim Jaañ defe naa ñu ngi ci mbooloo mi ñoo ngi leen di ziyaare bu baax di leen balu ak te di leen baal ak tey jéggulu toogaay bi ndax vingt une ba léegi wala vingt ba léegi nit ñu toog ko ngir lan ngir président Amadou Ba ngir lan ngir njariñul Njaañ ngir lan ngir Alla Thiam ñoo ngi nuyu waa Benno Bokk Yaakaar gi yëpp defe naa ne buñ limee dañuy juum wala ñu bañ a matal kenn ku ne xam na ne Baye Talla mi nga xam ne mooy di sunu coordinateur ñu teg nuyoo bi ci loxoom di nuyu suñu bàjjen Penda Ndiaye mu teg ko ci femme responsable yi ci région de Louga bi yëpp rawatina commune Ndiaye tey dañuy tëj suñu campagne ñu am candidat kan mooy suñu candidat kan mooy suñu candidat Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba mu di candidat wu Benno Bokk Yaakaar defe naa Benno Bokk Yaakaar def na 12 ans ci Sénégal kenn ku ne xam ne lan la Benno Bokk Yaakaar def ci Sénégal kenn ku ne xam na ne Benno Bokk Yaakaar lan la liggéey ci àdduna bi. defe naa ne Gàmbi gii ñu gën a jege rek xam ne lan la président Macky Sall liggéey ci moom ko rawatina suñu réew mii nga xam ne moo di Sénégal suñu candidat nag moom ay projet yu baree baree bari yu taxawal fii ci Njaañ defe naa ne ñun rusuñoo jaay suñu candidat rusuñoo wane suñu candidat kan mooy suñu candidat président Amadou Ba lan la def ci njaaj lampadaire yaa ngi nii kan la lampadaire yi kan la dama ne goudron bi kan la ma ne xar yi ñu doon kan la kon yaakaar naa ne suñu candidat mën nañ ko fee jaay te olof Njaay daf ne ku la jox ndekki jox la añ solo ne nee toogal danaa la indil reer war nga koo gëm te loolu la président Amadou Ba dik njaañ dafa am lu mu soxla li may wax ne njaañ xajul ci gannaaw kenn la muy di ko itteewoo président de la république moom moo ko mën a defal mais xajuñu ci gannaaw opposition dañoo soxla deuxième forage dañoo soxla centre de santé jigéen yaakaar naa ne li ma leen di wax yéen a ma ko gën a xam lan lañ yore dispensaire ñaata at bis njaañ sosoo ba léegi benn dispensaire lañ yor. kon yaakaar naa ne war nañoo dépassé foofu ñu nekk kan moo ñu ci mën a génne président Amadou Ba. Njaañ dafa soxla deuxième forage. loolu loolu bu ngeen ko waxee danañ ko gëm ndax ba ngeen dogee ba léegi yéen a ngi toog fii bu ngeen nee ñun la ñuy voteel gëm nañ ko. ñu soxla deuxième forage defe naa ay jamono man Alé Thiam du ma ne dama ne man Alé Thiam ànd nañoo ak techniciens yi ba ñëw ne fii la war a def deuxième forage lan moo ñu ko xañ dama ne yeewu leen ku munta di dara fii ci biir Njaañ munoo koo di ca Louga munoo koo di ca Ndakaaru munoo koo lijjanti France munoo koo lijjanti Italie mënoo ko lijjanti feneen ma ne mënoo ñoo lijjanti biir Njaañ nañ leen yeewu. kon fi muy lijjanti ko foofu lañ bëgg a teg suñ baaraam moo de gañeel Amadou Ba premier tour fii ci Njaañ gañeel ko premier tour ci Sénégal gi yëpp ngir nag ñu mën a laaj li nga xam ne moom lañ soxla. ma ne bu dimanche ak jàmm jóg leen tem bu ngeen xëddee dem leen vote ji buñ ndogoo ñu dem jubile yi ci kàttanu yàlla ñu gagné au premier tour comme nag dañ doon def benn déclaration rek ngir ñu mën a continuer suñu liggéey presse bi man koo mën a jàllale adduna bi yëpp war a xam ne njaañ kat am nañ taxawaay ci Amadou Ba njaañ am nañ taxawaay ci Sénégal ndax dañ cee am wal te mbir boo ci amee wal da ngay wane sa bopp mooy li ñu def tey jii ngeen wane seen bopp ba xam ne am nañ fuñ jëm am nañ luñ bëgg am nañ luñ war a laaj am na luñ war a dem jëli ñëw teg ko ci biir Njaañ loolu moo doon suñuy kàddu ñëpp di balaax ñëpp ne bu kenn keneen fa nga toog na fi